nomination du président du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Idrissa Sek est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Nganima Idrissa Sek non non non non mënul nekk Idi. dama le yéene ci politique am ci vous peuple sénégalais. Wami kan lay dégg muy wax Idrissa Seck donc station yi ma municipal ou Thiès. conseiller régional ou député à l'Assemblée nationale. le président de la République. ah bon Idi yaa wax loolu. kon yow lim station yi nga xam fa nga kon. nga ñu di lay nga conseil économique social et environnemental. dugguñu ci politique pour yàq. dañoo dugg ci politique pour defar. Nous ci politique pour tout Nous avons ci politique pour tabax loolu moo tax ñu jël suñu responsabilité ah loolu moom monsieur Idrissa Seck sa xalaat la wante am na ñoo xam ne ñoom xalaat ñi xalaate neneen seen xalaat respecté naa ko ko taataan naa dugg na ci processus bi nga une ni ci laa décision non non man ba léegi nag munuma gëm ne Idrissa Seck moom mi fi waxoon démb ak barke démb ne xalaatul sax am benn poste de responsabilité boo xam ne daal bu dul bu ko askanu réewum Sénégal jox xalaatu kaa nag am fi ci biir réew mi tey jii kon moom moo nangu ñu daal di koy tàbb ci bopp conseil économique social et environnemental kon tey yow Idi nangu nga ànd ak Macky Sall mais Idi yow tamit nag franchement lan moo waral li ni mel. boo seetloo àddina bi fu ci bari seen économie nërmeelu na ndax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 wax dëgg yàlla yomb naa muñ nag. mais quand même di Idrissa Seck lii nag mën na laa rey politiquement. te comme dañ maa tàgge ay tàgge yu bari ci politique te ba léegi may dund <laughs> jàpp naa ni loolu duma ci bàyyi xel. bon monsieur Idrissa Seck xam naa dañu lay bàyyi ndax dafa mel nii ne <laughs> danga nga xaw a sonn. nelawuma lu bari. waaw mais laata ngay dem laata ngay dem tëddi. léegi mën nañu wax ne comme lëngoo nga ak Macky yéen ñaar mën ngeen ànd léegi di bàkku. naan fañ fañ fañ. wacaaca. fañ fañ <laughs> Eh, non franchement c'est pas sérieux quoi c'est pas sérieux hein